jox sa waaj waay di la di bëggee àdduna di ziar ñëpp di ziar euh, monde entier bi ah. rawatina sama koñ fi ma fekk nii ici seen di bëggee ñëpp daal di ziar Baye Fall ah di la ah, dalal ak jàmm ah ici seen notaire. yeah. fii mooy notaire Amar Sall fii mooy capital bi. Ah. yeah. fii mooy ku bëgg a ndekki fii lay ñëw ku am programme mariage ngénte cérémonie lépp fi nga koy defee ci deux voies fii mooy capitale Guédiawaye quoi notaire ah. ici c'est Qatar noonu la demee yeah. Mhm. waaw sama dernière sortie mi ngi pa doon le 6 novembre bi passé jour combat si ta Papa Sow yeah ma dem waaj ana sama mbokk ñoo entraîné ñoo bëree suñ borom xañ ma xam nga booba léegi nag maa ngi toog defuma benn émission maa ngi soog a def émission toog sama ruux xam nga nekk sam bopp di entraîner boo ma samay business nekk ci toog sam nekk sama bopp yee sonalu ma kenn maa ngi sama bopp daal noonu la demee. combat bi waaw préparé naa ñëw naa bëre mais li ma ko gën a ñaaxloo accès de confiance yi la bokk. yee parce que dama ñëw dëgg sama bopp yaa ngi dégg ñëw foofu xam nga dëgg sama bopp di xeex. loolu moo ma ko ñaaxaloo quoi barki alxuraanu karim mais bu ma defan sama téye sama bopp sama combat yi passé nii suñ borom mun na ma may ndam quoi mais dama ñëw xama taxaw dëgg sama bopp coxaas door ñaari góos duraat ma xam ne tuuse naa ko mu daw xama di yoor di jël sama tànk ma daw di ko góolu nii pour di ko bloqué mu rocceekuwaat ma rëpp yee munu ma génnaat suñ borom may ko ndam quoi di ko félicité tamit caadu piol bi xam nga yee lamb la bëri nañ ba pare waxuma dara lu ñaaw ah man tamit waxuma ko dara lu ñaaw di ko bégee di ko ñaanal xam nga ndam li yàlla na ko jik li nekk ci kanamam képp ku fi bëre te dëggul géej waaye yàlla na ko yàlla may dam pom borom baax la di bégg waala Fallou yee Fallou bu caar piol bi Fallou sama gaan la mi ngi joobe fii nii esat yee sama waay la depuis li combat bi taxaw ba léegi lu naas rek la ciy wax Fallou moom sama lonko la quoi yee non non du doole sax parce que foofu noonu maa moom jàppante ñu ba doole dafa feeñ quoi boo gisee moom jàpp ma jàpp mo ko ba léegi seetaanal combat bi man maa ko song yaa ngi dégg moom moo may song ma daw di ko jàpp mu rocceeku ma rëpp ba léegi jàppantewuñu eh, mais làmb la rek dañuy dem rootiwaat xam nga ñëwaat taxawaat booba léegi nag maa ngi dégg lu ne gaa yaa ngi wax mbëri seen i message su may dal seen i may jël PV di tax du ne ñu koy wax ah. mais lu jot yomb quoi. a ah, booy de xam nga rek bu ñu bëggee bëreeg yow moom xam nga lu ne la ñuy wax quoi sant yàlla la am na fu mbër yu fi nekk yu bëri booy yu bëgguñu bëreeg ñoom dem rek sam ménagère as woo na ma Mour Baye Fall woo na ma démb sax di ma proposé ay combat naa Seydina Mohamed ba ma bëree ba léegi li ma fi jot ci ay bu fekkee na bëgg naa bëree waat naa bu yàgg mais man maay toog xaar boo daanoo da ngay defaraat quoi defaru ñëwaat au passage di nuyuwaale Zal Oni bu baax a baax a baax di sant Modou Diamaguène di sant sama waa koñ ñoom Kareka moo ngi nii gaan toog ASC notaire bi bàyyiwuma kenn Daouda Sané xam nga bëgguma kenn mbër sa mi ngi nii sama wet doomu koñ bi di bëgg sama gaay ñu ngi nii toog war na Serigne Touba man notaire laa man bu ma baree ba pare maa fi toog yaa ngi dégg ay usu bébé ñu ngi nii toog gaa yëpp. waaw ah mbëri de gaan démb rek am na message yu ma la tegal. bu la neexee mun naa teg nii rek ampli nga dégg ay vocal yu la neex. billaahi yi gars yi lu leen neex lan may wax ci message bi. non gars yi mooy loolu. gars yi tur bëgg rek non tur leen bëgg xam nga gars yi moom kenn xamu leen. wóor na Serigne Bamba. Ah. nañu koy wax. ah, ah booy booy bi sax ma ko mi ngi nii nu mu tudd. boo déggee baaram de ah. sa bopp ñu bëri jokkeel ñaawu ndaw. xam njaay benn xaw mi ngi dellu de kii tamit ma xool booy bii nii. si loo neex yaa ngi si jàmm say jàmbaar say nan. waaw. le 18 nii dafa ah, bëri de. waaw dégg naa ko mu naan jour combat le 12 mars. avance mi ngi ci aas. mi ngi wax de mais eh, lii ñoom ñëpp daal xam nga lan laa leen wax mooy nan tey rek. noonu la demee bëgg a bëre taxul bëre quoi man maay xool ku ma neex ma bëre moom ñoom duñ ma wax ku muy ku may bëreel dëgg la ay mbër lañ ay champion lañ daa na defal jàmm. yaa noonu la deme noon la demee mais booy xama rek booy dañoo bëri wax quoi rek tapet la ñoom ñëpp. man Notaire laa dëkk man man Notaire laa dëkk teg ci doomu Guédiawaye laa dëkk Notaire man du ma ragal duma ma tapet koñ bi may juddoo ni amul ragal boo ñëwee Guédiawaye dëgg la ñun ñëpp Guédiawaye lañ dëkk mais fii dañu jox cër ci lépp non non man booy du ma bëree ñoom du ak ñoom booy maa seen i grand la dañuy xaar du ci bëre benn booy barke Serigne Bamba booy yaa leen tudd fii sax di leen may tur bàyyi booy nii ñu xool samay morom ñi ci kaw yee man ñi ma war a bëreel xam nga leen tuddal ñi ma war a bëreel ma bëreeg ñoom. bëri nan lamb la maag moom. barke Serigne sam-sam foofu laa mujjee woon. waaw foofu laa mujjee am fa ndam ñoom ñoom ñooy yor ñoom ñoo yor bor bu ma fay leen. bu ñu bëggee ñu ñëw de. Pikine jàmm yee. waaw. waaye boo yooyu yëpp dañuy xaar du ma seen morom. Hmm. dañuy pas. day xaar de. barki alxuraanu karim. maa moom làmb la bu ko bëggee bëgg naa ko. waaw taxawu ma di ko laaj mais bu ko bëggee ñu bëre. grand combat la bëre bu ñëwee ñu bëre. Ah. waaw. déggoo li ma la wax ndaanaan mooy man déggoo li ma la wax man sama adversaire xam nañ seen bopp bu bëggee ñu bëre. bëri naa fi adversaire bëri nañ mais bu bëggee ñu bëri ah ci moom la des waaw. Gorofil waaw Gorofil tamit xam nga Gorofil moom Baye Fall la sama waay la xam nga barke Serigne Baba taalibi Serigne Saliou la billaahi Gorofil moom gaan xam nga <laughs> oh, Gorofil waaw sama waay la quoi ah. billaahi laaj ko pare rek moom noonu la deme waaye bu ma tuddal booy tapet yooyu waaye booy tapet la tapet la booy dafa bëri wax barki alxuraani karim du ma ak moom day ndellu rek ah, du dara man sëtu maam Mori Biram Fatma laa déggoo li ma la man setu maam Mori Biram Fatma laa ñoom seeni i maam yabaloon sama maam barki alxuraani karim te duñ ma yab kan ma jolof jolof bi bu ko fi tudd waaye avancé ñu ne ci leneen seen papa laa soxla sita daa ko du peloton bi du dërëm combat Balla Gaye Boy Niang bi gisoon ko mu def ay vidéo Siteu yow yow rek la rek fii la la Sa Thiès jàpp génne la gos boo bëggee Balla nga ñëw mu may la waaw nga lekk ba rek mu tànni la fole ah. ana fii di sonal nit ñi merci Thiar Fora moom mbër bu mag la bu ko neexee na na ma may sens ñu bëre na ma may sens ñu bëre ah. waaw bëgg naa loolu maa Thiar bëgg naa ko hmm. waaw Thiatou Fora bëgg naa ko mais am na ci yeneen booy yoo xam ne bu leen tudd dama tudd ko ah. waaw. waaw. booy fi tudd léegi. yoruñu booy yoruñu. Ah. waaw. non gorofil moom ah. Ngor parcelle Pikine man fu ma dugg baax na naa rek. fëgala mu Ngor kooku day simb. kooku du dara. famille ñànk la bokk ko amul tigga génneel si monsieur si bu kal la man dama bëgg sax mu seel ma benn programme fii nii notaire ci deux waay fii ma def cinq jours bu dëgër waaw day simbu kay waaw def dëgësement loolu bëgg naa ko de kii na ma may sax ñu la fou barki Serigne Bamba moom laa bëgg de ondu du dara du tuus xaaral ma paas la mbër ah. kii mooy doomu kañ bi mbër kii dirigeant bu mag la ci ASC e bi koñ ma doon ko jox cër barki Serigne Bamba notaire yëpp moom lañ jox bopp doomu géeyawaay teg ci du tapet doomu dëkk bi kii bu jógee ñëpp ay jóg pour Serigne Bamba kii mooy mbër sa biigee mooy borom dama lay nox loolu la demee nag noq mu gaaw aja mbër sa salaamaaleykum siyaar naa la yaa am jàmm siyaar naa la bu baax il est maire kii booy ñaa bu jógee ñëpp jóg ragalul du arrière toj na ginnaar waaye toj Pikine toj parcelle ragalul dara lu leer laa la wax il est mieux ngi nii yaru barki borom daal ñëpp jox ko cër si koñ bi moo tax moo tax booy ngay tudd nii du sen morom dañ ko bëgg mooy doo mën i nii yaa ngi comprendre doo mën a seet a ngi nii ñëpp ko bëgg a bëgg bëreeg moom mais soxlawu leen dañoo war a avancer ah avancé non waaw dañu avancé ñun eh, arrière dañu avancé combat neex billaay wallaay wa lépp combat am day neex ni nga tudd yow noo ñooñu ñu adversaire am romb na ñooñu ah. déedéet moom kay day day jug rek avancé kanam hmm. waaw waaw kii chaque jour mu ngi géej dem saal heure ma fajar ma nga dem géej ngoon fu foo jëm mu ma ngi dem saal. ah. heure bu xëyee ma ne foo jëm mu ne ma baa ngi géej ngoon foo ma ngi saal ah baal boppam mu ngi si code teg ko ci yoon normal. billaahi wallaahi wa liggéey normal billaahi barki borom daaru ku baax a ngi nii. lan la demee borom notaire ngi nii. ak ci ASC e bi xam nga dirigeant yi la bokk fan si club yi. wane Serigne Bamba moom day bëgg ASC lu mu dugg dañ koy xam mi ngi nii. maa ngi ziar gars ah, di leen bëggee di leen jox seen waajuwaay waaw tey na da nga ñëw fu mag ci géejawaay maa ngi capitalu géejawaay nga ñëw mooy Sam Notaire waaw ASC bu gën a mag ñëw fekk suñu doom suñu xarit suñu champion suñu lépp muy booy Notaire mu doon ko am ten champion bu mag la ci làmb def na preuve quoi wane boppam waaw ndaanaan la champion la. waaw ñi ngi fi boo ñi ngi fiy tudd na ngay tudd ñoo xam ne ay champion lañ comme moom mu bëreeg ñoom mais du arrière di bëreeg boo yi nga xam ñi ngi doog a débuté ci làmb defaguñ fi dara ba pare bëgg a rëy làmb ñu fii ne kii champion wala la te fekk ci kanam nag làmb ji nañ gën a xam de barki alxuraan nañ gën a xam ndax am na jom xam nga mi ngi liggéey di entraîné ànd ak waa koñ bi ànd ak gox bi xam nga jox ñëpp bopp ñëpp di ko conseil miy déglu waaw doon ku baax grand boo xam jox waaye ñëpp ko jox cër fii nii comprendre nga waaw essayé nag làmb moom mi ngi mi ngi suñu mi ngi ci kanamam rek waaw na gën a yokk entraînement waaw gën a def la ca war rek champion la xam na lu ci ne lu ciy nekk ko waaw bu defee loolu rek dinañ ko dégg ca kaw ca kanam incha allah ndax drapeau Guédiawaye moom day bokk ci ñu koy téye instant mi ngi koy téye mais dina ko gën a aj fu kawee kawe kawe incha allah ok. ok saa ki mooy jour bu mag bi <laughs> mais dafa mën a xàññ nag du bànn de du dërëm <laughs> du tus mbir bu yàq der <laughs> waaw bëgg nañ leen. lépp jàmm ñoo ngi leen di siyaare waaw man promoteur yi laay waxal bu ma nuyoo ba pare parce que kii doomu dëkk bi la ko waa kii ay làmbam dafa war di daw di dàqee barki sëñ Touba kii maanaam warul sax di toog di laaj diw wala diw wala diw kii bu at bi war na si bëre ñetti yoon bu ndaw ba ndaw nañ dimbalante waa ñu jàppalante ñun ñëpp ay jeunes lañ mais buñ toog seetaan booy parce que loolu du yoon booy bëre mooy seen job la moom la am si lañu yaakaar dañoo am ay kër quoi am njaboot nañ taxaw si loolu waaw kantaan ak ay adversaire ak yooyu moom ñun duñ taamu kenn eh, waaw kuñ laamu boolel rek kuñ laamu boolal ñu gis ni war nañ mën a bëre ak moom te booy ñeme am seen fitu bopp song sa waay nañ ñëw quoi ñu kenn si lenn nag ku bëgg a bëre rek ñëwal. quoi jël affaire yi gën dugal ko yow noonu la dem daa ngi nii ah suba dan am fii benn after work suba isgéwal moo koy gérer mi ngi commencé côté vingt et une ah. suñu artiste moo koy gérer fii nii ci deux di woo ñëpp géejawaay yëpp ñu ñëw toog ah yow la demee. kii mooy daamun moo géré fii nii boutique bi moo géré deux voies yi bokk ci dirigeant ASC bi borom yoon la nag yee kii mooy séeri aliment alima lu mu toogul baaxul borom mbaxalu saalum yi bu maafee mu neex bu ceebu jëlee mu neex alima yaa alima waaw ñu ngi koy siyaar ñu ngi siyaar yéen ñëpp di jox seen waa ci waay seeti ngeen nag mbër mu jaral seeti doomu dëkk bi borom géejawaay booy ñaa waaw borom xam nga ngoonal géej yi waaw bu duggee géej moom bu génnee moom nga xam ne am na développement Sall dafay dugg toj fa diine moo ko moom waaw doomu nday xam nga mbër sa doomu nday saadibu doomu nday medun xam nga sama doom nday man Abdou Karim xam nga Abdou Karim mu ngi nii mais dafa ragal image waaw ñoom ñëpp ñu ngi nii taxaw waaw mais xam nga di ko ñaanal nag moom moom suñu mbër la waa bu jugee géej waaye yëpp ay jóg notaire gi yëpp ay jóg mooy borom ASC notaire waaw mooy doomu dëkk bi en gàtt ci gàttal daal waaw moom nag xam ngeen ay adversaire am waaw buddu yanu mais xam na lu bopp attan jox leen ko ko mu bëre waaw tëggal leen ko combat waaw adversaire yi amul ragal ñëw leen ñëw leen jël Boy Notaire waaw doomu dëkk bi waaw de leen waajal nag moom mu ngi ci boppam mu ngi ci boppam mu ngi ci mu ngi sul ay tànkam nag nekk ci waaw di waajal am combat xam nga yàlla may ko ci ndam <coughs> waaw bu soobee yàlla suba nag dañuy am after bu mag waaw boo xamante ni sunu artiste sunu doomu sunu doomu dëkk moo fi ñëw Is Gueweul waaw def benn soirée live acoustiquement rek ñëpp toog def consommation waaw am na ay réservation la table table 5000 am na table 10 000 table 15 000 table 20 000 par quinzaine la nag chaque 15 jours ak artiste bu ñuy invité ñëw leen ngeen ñëw xam ñu dund suñu fête dund suñu ambiance waaw comme niñ koy defee rek waaw commencé nañ ko nag depuis le 31 décembre ñu ngi leen ci woo yéen ñëpp waaw jaa ngeen noonu la demee war Saliou kon ñu tàggoo rek waaw di sant nag di santaat. waaw ceebu xonk <laughs> kooku dafa neex kooku moom mën naa ko may chance quoi parce que dafa yaru. yee borom baax la moom buy wax ak yow sax xam nga da teg yar xam nga yar la ciy def quoi. bàyyi di bëgg ñëpp di jaar géejawaay di leen wax nag dañu am combat mois février bi. waali bu notaire mooy bëre na ASC e bi yëpp génn koñ bi yëpp génn. jàppale ko ah, suñu doom la yee suñu mag la suñu lépp moom bu ñu bëggee bëre moo tax ñu bëgg bëre waa gi day bëre mois février bi di ko ñaanal ndam wax na koñ bi yëpp génn ko génn jàppale ko di sant Taf Zane bu baax di sant instant borom New York di sant Baye Moussa Italie ah Pula yaa ngi dégg di sant euh, Demba Niis di sant Ndeye Ami Sané maam jaara Séeri Balla Faye maa ngi bëgg ñëpp ah kulim da ngay juum grand Maguette Italie ah. di sant sama waa koñ Dioum Gueye Baara Gueye famille bi ah di leen sant bu baax a baax a baax dañ may jàppale di sant Ousseynou Sena daf may jàppale père Ousseynou daf may jàppale di ma jox xaalisam di bëgg àdduna yëpp ku lim da ngay juum ah di sant sama waa koñ notaire ku lim da ngay juum notaire man fii laa am man aw ma feneen fu dul notaire yee noonu la demee di sant sama waa koñ karaf di bëgg ñëpp Baye Fall ñoom Pagolo ñoom Bada ñoom Saliw ñoom El ah, ñoom Antoine ku lim da ma juum mafia bi yëpp karaf yaa ngi di sant sama tuntaange ñoom Assane Ndiaye ah Assane Ndiaye papa Is di sant Thia Bombe sama jigéen ah samay combat dañ ciy sonn sama jigéen la Aïcha notaire di sant waat notaire suuf Bastos AS xam nga di sant ku lim da juum di bëgg ñëpp ñëpp daal di leen wax ah xaar bi yàgg na mais maa ngi ñëw jël leen seen temps ah, surtout maam Mor Birame Fatma bi Ndéla Birame Fatma yéen ah, seen i seen mak seen doom seen jarbaat. di sant sama waa dëkk waa Kéré mbay di sant sama sëriñ si Xaadim Mbaye Kéré si Seexuna Mbaye ah sëriñ Modou Mbaye si Abdou Mbaye di sant sama papa sama yaay Njaga Njaay Yande Sey xam nga bëggee ñëpp ku lim da ngay juum di leen wax ah ci kaw ci kanam Omar Saliou ah maa ngi lay bëggee yow moom borom yoon nga quoi élément Serigne Saliou ba ak Serigne Bamba yow borom xolu jamaa nga yee di sant sama ménagère As yee di ko bëggee di ko wax kontaan naa ci moom lépp moom la quoi man ku ma bëgg a xam nga fi ngay jaar naa ñëpp léegi na ñëwaat. ma moo indi woon Blindé Junior ma daan ko. léegi moom na ñëw ñu bëre. Ah. waaw. léegi na ñëw ñu bëre moom comme que moom moo indi woon Blindé Junior ma daan ko. parcelle déggoo li ma la bu leen neexee ñu ñëwaat ñu bëre. ci ñoom la des ñoo bokk ménagère. na ñëw ñu bëre. Modou Diamou kat maa ngi koy bëggee bu baax sëñ Modou Ndiaye Fatick. di sant ñëpp nag. noonu la demee. atia.